mbokku Farokh TV ñoo ngi taxaw ak ki nga xamanteni moy alhaji Mahi Ndaw di doomu khalifa alhaji bashir Ndaw fi ci daru salam alhaji Mahi ginaaw bu ñu ñoo ziar la lan nga ñuy wax tey ci li nga xamne moy gamu 2020 daru salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen mbokku Farokh TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sante di leen gërëm ci seen taxaway la événement bu fi am yéen a ci taxaw seen kéemtalaay kàttan gannaaw loolu comme nañ ko daan waajalee rek ñu koy waajalee suñ kàttan waajalee ko suñ mën-mën waajalee ko suñ xam-xam ak xel ak lépp waaw bàyyi luñ ko dara ndax yónnante bi rek la ñu moom la ñu béyee suñ maam depuis 1929 ba léegi mu ngi koy màggal bañ toog ba fekkee ko màggal gi euh, buñ ba dem di ci am ay gan wax dëgg yàlla dafa ñu rus sant yàlla di ko waajalee nag ci anam yëpp anam yëpp rek ñu ngi koy waajalee bàyyiwuñ dara ndax lépp lu ñu dajale rek yónnante bi ñu ko gënal. Euh, seen maam boobu nga tudd mooy Alhaaji Omar Ndaw bi nga xam ne moo wootee gàmmu fii ci Daaru Salaam ndax Alhaaji Omar Ndaw Daaru Salaam rek la mus a gàmmoo wala am na yeneen dëkk yu mu daan gàmmoo laata Daaru Salaam waaw dëkk bi njëkk a gàmmu Ngambe la tudd ay najaayam ma fa dëkkoon ndax bi muy dem jaamaal ñaari way juróom yëpp boobu dundutuñ léegi nag bi mu paree jàng jaamaal fa juróomi at ba mooy ñibbi ci ay najaayam la ñibbi muy Ngambi Ngambi def na fa ab diir am na ne ñetti at la fa def wala ñeenti at mu jógee koo fa ñëw sanc dëkk bu ñëw Medina Ndewen foofu def na fa gàmmu masta ñàkk def gàmmu dëkk bi mu ngi ko sanc 47 ba masta ñàkk def gàmmu kon yàgg na koy def gàmmu gi mu ngi débuté ci biir kër dem ba ci mbe mbedd fi mu na xëyee ci sa ci dëkk waaw kon gis nañ ci yokkute bu rëy macha allah euh, euh, sëñ Mahi ki nga xam ne mooy El Hadj Omar Ndao bu ñu doon natable bëgg yonentam nan lañ ko mën a natable wala yan bëyitam lañ ko mën a natable loolu moom kenn mënu koo natable ndax loolu ci xol bi la ne moom yónnante bi la xam limaam yónnante bee ku ko jox wax na ko mu leer naa ñi waxat kuntu xaana le xëyin wa xallatin fa arwa waa mi xayru xalq wa naa ili yónnante bi ma naandal ba ma màndi loolu moo ko waxal boppam ku la defal loolu nag mënoo ko man tey ma lay yónnante bi dara waaw bi yépp surtout yawaaqiit bi fu mu taggee yàlla dana tagg Rasulullah njukkal ko fa loolu rek doy na tegtal te it bëri na lu mu cee sàkku lool gis yónent bi loolu dooy na tegtal ci cofeel ci yónent bi waaw wa arini man raaka istukallimu bëri na bëri na bëri ab yaar yi bëri na trop jërëjëf sëñ Daw xam naa euh, waxtu bi euh, mayu la ko waaye incha allah cérémonie officielle bi dinañ yeggal yu bëri jërëjëf jërëjëf